drapeau Sénégal wàcc euh, sur le terrain muy Eva Eva Rose euh, nekk aussi une grande patriote mu nekkoon jigéen ju man góor aussi euh, moom it dafa daal di wuy ji suñu borom ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xaare aljana suuf foofu si kawam si daraje Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam di wax ne patriote yi nag ñàkk nañ koo xam ne ku yàgg xeex komba bi la ku yàgg yëkkati li xam ne moom mooy euh, drapeau Sénégal mais ku yàgg gëm ki xam ne mooy usmaan Sonko comme moom Eva Rose ñu ngi koy ñaanal yal na ko yàlla xaare aljana yal na suuf woyof ci kawam si daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla yàlla na suuf ci kawam si daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam njaboot ji xam ne moom la fi bàyyi yal na leen yàlla teg loxo. tey nag patriote yëpp am nañ lu leen metti voilà mi ngi nii Eva Rose une grande patriote une fille boo xam ne macha allah foo ko fekk rek euh, da daan wane lam ci Ousmane Sonko foo ko fekk rek da daan wan ne ne moom mbëggeelam ci Ousmane Sonko mbëggeel gi ma amoon nag ci askan wi moo daal di wuyu ji suñu borom ñu ngi koy ñaanal Eva Rose na ko yàlla xaare aljana su fooyof ci kawam si daraja yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na nga réccu li nga doon def fii xam ne mooy àdduna ñi ngi ñaan yàlla subhaana wa taala sa njaboot ji xam ne ñoom ñoo fi ne yàlla na leen yàlla teg loxo ci daraja yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi woon woon ñàkk la rek ma ne naa ko ubbee li xam ne moo di plateau bi ndaxte defe naa ne naqar bu amee wala bu bànneex amee noonu lay fas yéene di ànd ak yow te kii jigéen la patriote la woon amoon amour ci li xam ne mooy Ousmane Sonko maanaam patriote bi mu doon ba tax na da ko daan fësal ci ay plateforme am euh, fu mu mënti nekk rek daan wane mbëggeel gi xam ne am na ko ci Ousmane Sonko kon ñu ngi koy ñaanal Eva yàlla na réccu lu mu doon def ci kaw suuf njabootam ji fi tegu ak ay mbokkam ay wéyjuram ñëpp yal na leen yàlla xol may xolu muñ suñ borom nag moom bu soxlaa ñëpp ay ñàkk kon dañuy ñaan rek yal na ko yàlla xaare àjjana ay ca tafaa euh, jërëjëf lu mën ñàkk la rek ñu ñu daal koy euh, briefing nag ku nekk xam ne ne nag euh, réew mi jaxasoo na jaxasoo goo xam ne yow doo sax comprendre wala réew mi fi mu toll tooyuwaayu réew mi wala coowu réew mi wala jafe-jafe yi ngay gis ci réew mi wala lii moo xam ne ay kilifa yoo xam ne ñoom ñoo war a xool naka la réew mi arrangé woo ñoom ñooy xëy di toog ci plateau yi di wax lu leen saf benn ma jàmbal ma Madiambal Diagne man dama foone dafa jël meles dafa am na téere yoo xam ne meles lay tudd meles da ngay foone boo ko takkee kenn du la gis wala loo wax kenn du la dégg ndax yow ma kenn terew laa ànd kenn nag je le dis et je le kenn terew laa ànd ak kenn nag am nga droit ànd ku la neex. am nga droit dimbali kula neex ma jamba yow li la toogloo ci plateau yi ngay wax fi nga jaar ak aji sar na yow ya ko dimbali ya ko génn senegal yow sax xamo wala peut-être xamo la ciy fekk da nga japp ne waxna naa kon yéen entre yeen sen la saga yek sos gi aji doon sos ak wax ju ñaaw jéeg yépp seen biir la parce que man mënuma comprendre d'accord jigéen la parce que tey man je parle en connaissance de cause mais tey sooy wax dañ naan da nga bon wala da nga soxor mais yow que jigéen nga li nga yéene man yéenewu ma aji sar dara li ma ko yéene mooy la ma dala wax 2021 2022 ba 2024 gi ñu toll aji saar waruñoo gis fu ñu koy mën a dimbalee dañ ko war a indiwaat yoon yar ka mais buñ demee ba ay kilifa nag toog ci plateau yi nag ñoo jaar ak Adji fii wala ñoom ñoo ko dimbali laa war nañoo mën a def taxaw taxaw def point setlu man je parle en connaissance de cause ma jàmbal moom moo ne moom moo dimbali Adji Sarr ba mu génn réew mi ma jàmbal moo ko wax. moo toog ci palaato yi avoué ko bindul dafa wax en personne moom moo wax non kon ñun ñun ban senegal lañ nekk bu fekkee tey ñi xam ne ñoom ñoo ne ñoom ñoo am xam-xam ñoom ñoo am capacité bi ñu jëloon leen jox leen suñu réew naka te ñoom depuis trois ans génocide bi di dee depuis trois ans ñu jàpp ay doomu jàmbur tëj leen ci kaso bi depuis trois ans réew mi di tàkk depuis trois ans benn xale bu jigéen jël ñu du ñu manipuler comme pas possible ñit ñi di ko wër ñit ñi di ko jooytu ñit ñi nañ kii fan la war a ne kii fan la war a jaar nakate ki koy ñi koy dimbali ñu ngi ci plateau yi nakate ñi koy aidé ñi ngi ci plateau yi je ne parle pas que de ma soeur Agissar, mais est-ce que ma Diagne aussi ça va dans sa tête d'accord dimbali d'accord mais parce que amna na tu to Adji Sarr na fi mi fi na fi yow sax comprendre kenn waxul bu kenn dimbali kenn mi ngi mel ni kii jaay yàmba wala mi ngi mel ni sàcc bii sa sàcc ñëw ba sama biir kër ma jël ko protéger ko fat ko kooku maa ngi koy jàppale ci ay fotifam